buñ si jógee man ma def étude croisée boo xam ne nii ci Serigne Touba lay doon ak ku ñuy wax Edouard Aleste Crowley xam naa nag tur bi sax dina xaw a nekk gan ci ñenn ñi waaye comme Serigne Touba jël na ki gën ci mbindeef yi dendale ko ki yées ci mbindeef yi dafa am lu mu ci jublu dafa bëgg ñu xam ki gën ci mbindeef yi ñu xam ko xam lam bëgg ñu nekk ca te nekk lu ca te sax ca nekk ga ak nekk lu ga ba ñu xam ki yées ci mbindeef yi ba mën a moytu ay jëfam te di ko moytulu te sax ca moytu ga ak moytulu ga ci naa ne loolu mooy solo bu ñuy wax ci diggante ku baax lool na ku bon lool mën nañoo njëkkee rek lan mooy baax ak lan mooy bon ndax kiy déglu bala moo xam ku baax xam ku bon xam lu baax xam lu bon lu bon amul cosaan lu baax rek moo am cosaan iblis mi yées ci mbindeef yi bonutoon ku baaxoon la ndax moom sax juddowul fii ndeyam a fi juddoo wasine ko ca malaayika ya moom mu juddoo ca malaayika ya kon moo gën a pur ndax fa la juddoo ñoo ko yàq ba mujj mu jiite yi ëpp walla lu bare bare bari ci malaayika yi xam kon bonutoon waaye dafa am lu ko bonal bon du tënku ci lu dul bàyyi ndigal kese foofu la mooy nekk ba mu bàyyee ndigal la suñu borom xoolatul lam defoon lépp ndax lam defoon lépp jëriñul suñu boroom dara ginnaaw bi mu bonee ba yées itam wàññiwul suñu borom dara moo tax suñu boroom daal di koy dégradé mu yées mi defi kenn mënta wax ne liir sàngam dafa bon wala dafa iñaan wala dafa soxor wala dafa raciste ab liir moom dafa baax rek noonu la ko yàlla bindee yàlla bindul lu bon yuladul insaanu fitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunasiraanihi nit ki moom bi muy juddu ko baax la xam ne milieu bi mu nekk moo koy déterminé mu mujj nekk ku baax wala ku bon tey su ma juróon doom yóbbu ko Japon am ku juree Japon doom andi ko fii jox ma ko su ma ko yaree mu yor sama bos ñu am 30 buñ bu dajee sama bos japonais biir lay doon bosam nekk sénégalais biir kon nit ki mi ngi dellu ci fam juddoo ak fam yar ak ndigal la muy topp ak la muy mooy kon baax ak bon lool la góor gu ñu doon wax Albert Einstein doon nag allemand euh, ab allemand dafa am benn bis ca ba muy nekk gone ne dem day day jàngi muy jàngi école fekk bis boobu li ñu waroon a jàngale li professeur bi waroon a jàngale mooy yàlla dafa bon loolu la bëggoon a démontrer bi ma agsee ba toog professeur bi ne tey li ñuy jàng mooy yàlla dafa bon ñëpp tàccu moo mu toog rek Euh, mu tàmbali daal ne ndax yàlla gis ngeen ne moo bind lépp ñu ne waaw moo bind lépp mu ne kon moo bind bon ñu ne waaw moo bind bon ñu ne kon dafa bon ndax bu bonutoon du bind bon Albert daal di jóg tàllal loxoom te boobu ngone su ndaw la ne ko waaw ndax sedd am na <coughs> professeur bi ne ko waaw ñëpp yuuxu ndax dañuy jàpp ne question bi mu posé question bu stupide la bu bu dofe mu ne ko waaw sedd kay am na Allemagne bu sedd gi nga xam ne mooy x degré nga naa ma sedd sedd am na sedd kay am na mu ne ko physiquement sedd amul tàngoor dong nga am absence su tàngoor moo indi seddaay xaj na ñuy yëngu ci ay climatiseur ak ay frigo danañ xam loolu danañ xam ne tàngaay moo am mais tàngaay bi la ñuy fexe ba mu absent ba mu ba mu am absence sedd bi ñëw na koy defee rek nag moo loolooy xam-xam mu dellu ko posé beneen question ne ko ndax lëndëm am na élèves yi kenn ñemeetu te wax dara kenn ñemeetu te yuuxu ndax gis nañ ne yay na professeur professeur bi xalaat ba mu neex ko mu ne waaw suñ tëjoon classe bi hermétiquement maanaam ba ba yendeer du am dara benn lumière du dugg ñu fay lamp yi lëndëm day day lëndëm mu ne ko déedéet leer doo nga am lëndëm amul absence u leer gi moo indi lëndëm gi ndax bu amoon leer fu mu jaar rek ñépp di gis lampe bi tam ba mu fayal la ñëpp noppee gis te sa bët yi kese yi mënta gis kon leer moo am waaye la dem amul ne ko nag yàlla moomu ngay wax naan dafa bon bonul bindul lu bon xol bu yàlla nekkul la lalu rek moo bon moo nekk bon te woon du jullit sax waaye antaqahu llaahu alladi antaqa kulla shayin yàlla moo bëgg wax ak moom jaarale ko ci ci ngóor soosu lu vide amut lu vide nga xam ne dara nekk fa amut ab kaas tey su ma ci jëloon def ci ndox ba mu fees dell dañ naan kaas bi ndox a ci nekk wala café ci nekk wala laneen a ci nekk waaye su ma ko tuuroon fomp ko ba mu set dañ naan kaas bi dara nekku ci waaye contrairement milliers de molécules d'air mi ngi ci biir kaas bi ndax lu vide mënta am loo gis rek dafa dafa dafa am lu fa nekk sama loxo bii tey su ma yoroon microscope du ma ko ñeme te maa ngi ko raxas ba mu set def ci gel jàpp ne set na su ma yoroon microscope ba xool ko dama koy ragal kon vide amut lépp loo gis rek am na lu fa ne kon loolu mooy dëgg définir lan mooy baax ak lan mooy bon allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min adulumati ila nuur walladina kafaru awliyaahum altaaxuut yuxrijunahum min annuuri ila adulumaat loolu la suñ borom wax texte bi nga xam ne nag moom la Sëriñ Tuubaa bind di màndaxe ki gën a baax ci nit ñi di yonte bi sallallahu alayhi ak gën a bon ci ci ci nit ñi mooy iblis laanatullahi taxi bi moo nekk nii Sëriñ Tuubaa dafa wax ne Muhammad rasulullahi moo gën ci nit ñi te mooy njiitul képp ku ragal yàlla daal di wax ne dafa am ay dëkk am ñum dëkkal ca dëkk ya am liggéey bu mu leen fay liggéeyloo am lu mu leen fay dundale dëkk ya ñooy lan ñooy iman islaam ihsan ñooy ñooy dëkk ya iman islam ihsan bu ñu ko waxee mooy lislaam rek mooy diine rek dañ koo teqalee noonu ngir leeral waaye imaan islaam ihsan boo leen boolee ñoom ñëpp mooy diine mooy diine rek ndax iman mooy gëm yàlla islaam mooy topp yàlla ihsan mooy ni ngay rafetale gëm gi yàlla ak topp ak ak toppik yàlla ni nga koy rafetale rafetal googu nag moo amul fu mu yam moom moo tax bu njëkk bi tawxiid a koy jàngale bi ci des fiq moo koy jàngale bi ci des tasawuf moo koy jàngale dafa mel ne ñuy tabax jàkka ji buñ ko fondation loolu mooy imaan buñ ko yëkkatee ba kuule ko ba def ko yëg mooy islaam finition bi nag amul fu mu yam ak rafetal moom amul fu mu yam bu ñu neexoon léegi ñu xolli ko def ko or wala ñu xolli ko def ko jamaa wala ñu xolli ko def ko beneen matière wala ñuy sensé ak sensé ihsaan amul fu fu mu loolu mooy mu ne nag dëkk yooyu di imaan islam ihsaan mooy dëkk yi nga xam ne nii moom la yonente bi sallallahu am nee na ña dëkk ca dëkk ya ñoo ñay jëfandikoo yooyu al muminuun al muslimuun al muhsinuun ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla te di ko topp te di rafetal nee na liggéey ba mu leen fay liggéeyloo mooy alwaajibaatu wal mandubaat mooy li yàlla te li yàlla digle li yàlla digle la leen fay liggéeyloo alwaajibaat wal mandubaat nee na dund bañ fay dunde nag mooy almubaaxu saalix almuslix mooy li dagan te baax tey baaxal bi mu waxee loolu ba noppi nag daf ne wal mustaasu minhu wal mustaasu minhu noonu la ko waxee wal mustaasu minhu bëggul sax tudd turam ndax mbon gu ëpp ak pexe yu bon ak li nga xam ne bis bu set bu yàlla sàkk mi ngi tàdd biir ay pexe jëmale ko ci doomi aadama yi ngir gur gurgur leen ñoo ñëpp yóbbu yóbbu leen saro ba da sëñ bëggul sax tudd turam tudd ko ba léegi daf ne wal mustaasu minhu ki may ki ñuy muslu nag daa di def géeme daa di ne aasana allahu wa iyaakum minhu yàlla nañu yàlla yàlla ma yàlla musal ci moom te musal leen ci min jamii ay makaa'idihi ci mboolem ay pexem wa xiyalihi ak ay ndëgg sërëxam wa wa iyaalihi ak ak njabootam daan moom itam noonu nii yonente bi amee yii nii noonu la ko amee dafa am ay dëkk am ñoom dëkkal ca dëkk ya am lu mu leen fay liggéeyloo am dund bu mu leen fay dundale dëkk ya mooy contraire u dëkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam iman islam mooy ay dëkka mooy al kufru wal fusuq wa shirk njabootam nga fa nekk mooy alkaafiruun alfaasiquun almusrikuun ñooy yëngu ca loola mu wax ne lam leen fay liggéey loola mooy almuharramaatu walmakruhaat li yàlla bañ yàlla bañ kese lay xëy suba ngoon ngir di leen ca xiir ñu nekk ca te nekkulu ca nag lam leen fay dundale rek mooy almubaax al fasidul mufsid li dagan waaye baaxul te du baaxal loolu nag boo ko bëggee xam mi ngi mel ne rek am njaay xam nga ku ne njaay ku ne xam ne dagan na waaye fi ñu toll nii ci moment bii may wax ak yéen njaay daganatul te njaay baax na ci ngay dundee ci ngay jëndal sa njaboot ci ngay defee li nga bëgg kon lu dagan la waaye actuellement daganatul ba keroog ñuy julli ba noppi ndax bu ñu xasee nodd rek njaay daganatul loolu ñoom moo la ñuy dundee léegi nag sëñ bi def na comparaison entre. ki gën ci nit ñi ak ki yées ci nit ñi ma jàpp comme sëriñ bi def na ko warit man na maa war a def ci sëñ Touba méngale ko nag ak keneen ku ñu wax Edouard Aleste Crowley ndax daa bari lu daa mel ne daa sëñ daa toppe sëñ bi sëñ bee ko toppe mbooro ba maanaam fu mu dëkk tëggeel ak ndëgg sërëx nit ñi sëñ bi def loo xam ne da ciy génne nit ñi Edouard ah, Aleste Crowley la juddoo mi ngi dë mi ngi juddu 1875 ci Angleterre am na juróom-benni doom juróom-benni doom yépp doomi njaalo lañ kenn ca ñoom moom la Bush takk Bush mële Bush père dafa am ñetti Bush Bush mi nekk bu yàggu bi xale yi xam nañ ko ak Bush baayam moom la ñuy wax Bush père moo tuddoon Barbara Barbara. Corolay la sant ndax Alexis Corolay mooy baayam waaye Barbara Bush lañ koy wax ndax tubaab day jël santu jëkkëram moo tax ñu naan Barbara Bush waaye santul Bush Corolay la sant mu takk ko am ci Bush mu ndaw mi Bush mu mag mu baayam nekkoon na bookkeeper Hitler bookkeeper mooy mooy secret mooy euh, comptable comptable euh, Hitler ku ne xam na ne Hitler li dee ci moom ci ay nit te suñu borom nee na wa man qatala nafsan benn bakkan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala naasi jamian moom nga rey nit ñëpp ñoo yem ci bàkkaar Bush moomee doon liggéey nga xam ne maamam moom la doon na liggéey ak ak ak Hitler ba Bush ba Bush moomu di baayam euh, am doom tudde ko Bush gis ngeen guerre ba mu defoon li dee ci ay nit mu juraat doom tudde ko Bush gis ngeen guerre bu mujj bi li dee ci ay nit bu sëñ Touba bii nag ma njëkk a tudd nga xam ne moom ay maamam ñëpp ñu baax lañ ba ci ñëpp loolu mooy wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbihi ñii nga xam ne ñu bon kese lañ mooy wala si sa laa yaxruju illa nakidan fii lu bon doo nga fi mën a génne fee dara mënu fee génne ci lu bon lu baax rek fu mën a génne ñaar ñooñu nag muy sëñ Touba radiyallahu taala anhu Aleister Crowley nii sëñ Touba def ci euh, lecture croisée ci ki gën ki gën ci nit ñi ak ki yées ci nit ñi moom laay def ci ñaar ñi muy sëñ Touba ak Aleister Crowley sëriñ dafa liggéeyal yonente bi ba tudd xaadimu rasul Aleister Crowley dafa liggéeyal ibliis ba tudd xaadimu iblis loolu bu ngeen ko xoolee ci téere bi mu bind da ko gis loolu benn nuroo lay ngoog ci safaano ba ca tege sëñ Tuubaa andil ñu ñaan goo xam ne mu ngi tudd al wirdul maaxuus muy ñaan goo xam ne nii day sellal sa xol ba nga xam ne danga àgg foo xam ne nii nit kum mën a doon dootoo ko xool ba di ko yéene safaan lu baax nga yéene ñëpp ndax day defar xol di la bëggloo yàlla di la dëddloo àdduna di la bëgguloo lu baax di la gën a bañ loolu bon moom dafa bind moom it ab téere téere bi mi ngi tudd the book of the law loolu boo ko tekkee ci ci ci tubaab mooy le livre de la loi wala ci arab kitaabul qaanuun bu ngeen ko xoolee dangeen ko gis ñaari nuróowaale ngoog sëriñtuba Tuuba werd wi nekk ñetti siyaax xafiif xaatam ak kaamil moom téereem boobu the book of the law nekk ñetti chapitre ñetti chapitre chapitre bu njëkk bi mi ngi ko tuddee nuit bi ci nekk xaadit bi ci nekk raahut yooyu ay yàlla la yu mu wattee sunu yàlla ji ñuy jàmm muy ñetteelu nuróowaale ci safaanoo sëriñ Tuubaa ne wird wi maaquusun min bi waasitati rasulillah dafa ñëw directement jóge ci yàlla suñu borom jaar ci yonente bi jaaraatul faneen ñëw directement ci man Edward Alesti Crowley nee na téeréem bi bi mu koy bind amul benn baat bu ci xalaatal boppam lépp seytaane moo ko ko sa minal bidayati ila nihaya di commencement à la fin loolu muy ñeenteelu nuróowaale nuróowaayu safaanoo Sëriñ Tuubaa jot wird wi ama ak sachin muy 1321 1321 boo ko indee ci milaad ya da lay jox 1904 Aleister Crowley téeréem bi mi ngi ko bind 1904 loola ti de baneen cinquième nuróowaale nuróowaale ak safaano Sëriñ Tuubaa jël euh, yàlla jox ko téere bi euh, werd wi joxe ko ko ci suuf su sell ca Sarsara Aleister Crowley xëram yooyu mu mu binde téere bi moom Angleterre la dëkk waaye ma ngi ko binde ca ca Égypte dàkk fa xëram yi gën a kii mu bindee ko fa moom foofee fa lañ ko joxe fa lañ ko saa téere bi boo ko seetee muy juróom benn nuróowaale ci nuróowaale ak juróom-ñaareel bi mooy Serigne tuubaa daf ko jot ci Ramadan di weer wi gën ci weer yi ale sikrole mi ngi ko jox ci avril avril dafa am solo lool ci ñoom ñoom dañuy tànn sax bu avril ñëwee da ngay fen ngir ñu xam ne ñu ngi ci avril yenn ci li ñi sax dañu leen ci roy daal di fen fen wu rëy daal di ne ne poisson d'avril avril dafa am solo ci ñoom ba ca tege mooy huitième bi nga xam ne nii ñoo ko nuroo nuróo safaanoo mooy moom da koo jot ci laylatul qadr Sëriñ Tuubaa da ko jot ci laylatul qadr moom mu ne euh, ñetti chapitre yëpp bu ko bu ci nekk mi ngi ko bind ci diggu njolloor njolloor mooy heure bii net ñu nekk moom la ñuy wax njolloor njolloor waxoon naa fii ne mooy waxtu yi nga xam ne ci la ñuy xambaat jahannama bis bu set njolloor gi ci la ñuy xambu jahannama mu gën a tàng gën a metti ngir ñam koy xarwa ëllëg loolu muy juróom ñetteelu nuróowaale nuróo ak safaanoo boo ko juróom-ñeenteel nga xam ne mooy bu mujj bi mooy sëriñ Tuubaa am ak tariqa al muridiya nga xam ne du tariqa boo xam ne sax sëriñ Tuubaa moo ko ko tudde noonu l'islam la rek ju sell ndax bu ko tudde woon noonu da ngay gis lenn lu laal ci boppam ñëw ci tariqa bi ñu naan bambiya wala mbakkiya wala xadimiya wala tubaabi wala naan waaye al a ngay gis muridi ñëpp ko bopp nga xam ne ñëpp ci mën a ñëw ku dib jullit rek da ci mën a ñëw amul frontière moom it moo njëkk a sos diine ji ñuy wax téléma bu ngeen ko gëstoo dangeen ko gis mooy diine ji nga xam ne ci la ñuy jaamoo seytaan boo demee États-Unis da gis ni ñu tabaxee jàkk ji mu rafet lool ñu defar ko noonu la ñuy tabaxee seen jàkka ñoom satanic church lañ koy tuddee satanic church defar ko bam rafet ñu def fi photo seytaane nee nañ mooy photo di ko jaamu bari na lool léegi ci àdduna bi bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi mujaddi l awaami aaman baada aam alladi iftataha bi afdali l ashhuri shahri l muharrami hada al aam ahmaduhu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مدد الظهور والأنام أما بعد يا رب قد دخل عليكم هذا العام فتلقوه بالترحيب والإكرام وتحببوا فيه إلى نبيكم واتبعوه فيه ما شرع لكم من الإيمان والإسلام والأحكام واتقوا الله وأكثروا من طاعته في أول هذا الشهر في الختام وصوم التاسعة والعاشرة منه ابتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ووسعوا على عيالك في عاصمه وأخرجوا فيه زكاة أموالهم وعظموا فيه حرمات ربكم واجتنبوا فيه كل فعل حرام واسألوا الله المغفرة فإنه يغفر ذنوب العيان واتقوا الله حق تقواه وادخلوا الجنة بسلام وفي الحديث داعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا البلاء بالدعاء والتضرع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 تنزه عن حب الدنيا كي تفوزوا مع الفائزين ولا تهتموا بأرزاقكم فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فوالله لقد ضلت نفوسكم في طلب الدنيا وصارت أنفسكم تنتهوا عن سماع الحق والكتاب المبين وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa fi lxadis aksiru min qawli la ilaha illa allah qabla an yuxaala baynakum wa baynaha walaqtumuha mawtaakum يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين